li nga xam ne moom la ñu maam yi bàyyil ñu gën ko aar gën a aar seen ñaan yooyu ba nga xam ne duñ toog di seetaan ay samba boo yu jógee ci àll bi ñëw ànd ak ñoo xam ne ni ay mécontent lan seen intérêt bopp ñooy wax nekkoon nañ ci gouvernement génn nan dàq na leen waruñu la mais <laughs> réew noonu lay doxee du caagin da war a continuer rek nekk di gouverner wala nga bokk ci gouvernement di continuer di dem kon jàpp na ne euh, loolu euh, euh, mooy li ñu ëppal solo instant bi ñu toll mooy fexe ba nga xam ne wàlluk ethnie bi dañ koy respectante parce que bu euh tukulóor séeréer ñu ñëpp ay kallan woon da daan waxante lu leen neex kaf ku ne kaf ree li nga xam tamit muy tarexa rawati rawatina ba ci ay dialogue islamo chrétien digënté ñun ak eh, sun mbokki tidiane yi ñun ay cousin lan ay cousine lan ah lolu day wëlër yo xam mam yi dañ ko xass ba tabax ndax nit ki nga xam da ngeen bokk ay deret tarix yi yëpp boo xoolee ñëpp presque ñoo bokk mel mam kon japp na ni tamit waxtu wu ne ay samba booy ñi ngi tabax ci loo xam ne ci réew mi pour lu koy taal lan waaye ñun kilifa diine yi ñoom ci seen jëm ñun ci seen jëm bopp waxtu wu ne ñi ngi gën a aaru kon fii ñu toll ñu ngi wax ay affaire pétrole kon war nanoo jege gën a aaru kilifa diine yi wax ci xam ne réew mi nag kenn du ko seetaan kenn taal ko loolu moom mooy méthode bi nga xam ne moom lan fas yéene doxal muy plan d'action boo xam ne dana dem ci suñ kër kilifa yi muy kër xalifa général yi wax ak ñoom leeral leen bu buñ paree danañ def benn appel boo xam ne danañ woote ñu rassemblement beeg ak mboolem ci citoyen yi ñu wan ne lii fi nekk ci réew mi la nga xam ne nag moom mooy ñu ngi koy coow ñu leen ko bàyyi yoon waaye lii fi nekk ci réew mi moom duñ bàyyi benn samba booy mu ko taal wala mu ko yàq loolu moom ay engagement yu ñu jël la euh, fii may waxee yow xalifa général du murid sax bu ne woon bàyyil politique dama koy bàyyi définitivement ndax ñun sëñ Tuubaa moo ñu gën a lu man di doon Euh, nit ki nag li ma la wax léegi bu jegee ngir aar li nga xam ne moom la fi maamam bàyyi euh, aar li nga xam ne moom la fi maam yi liggéey ci réew mi euh, lépp loo ko gis muy dox di dem rek jàpp na ne loolu lu mu war a mën a def la ngir liggéey réewam ngir ngir ngir ngir mën a aar fi maamam kon foofu it dañ koy mën a rafetlu ñaanal sëñ mu taxaat mu yàgg fi loolu ci wér ca it Euh, loolu ñu wax ñun ñëpp la engagé wu parce que euh, ay doomi diine lan beneen ba ci des nag kenn ku ci ne xëy na lay lay doon di ab yëngutoom waaye lu mën a doon bu ko dee yëngatu na ca na ca aaraale xam ne am na leneen loo xam ne moom la am loo xam ne du jeex ci loolu nga xam ne du jeex nag kenn ku ne war nga ko mën a sàmm ca euh, li ñuy wooye di ñuy tuddee ay kilifa dina ay sëriñ loolu moom du jeex mukk ba ilaay yu mi diin lu maam yi liggéey la kon lu mën a xew moo ñuy gënal lu mën di doon kon discours boobu rafetlu nañ ko su di gëm-gëm it mooy li may wax rek ci réew mi kenn ku ne ak la la ci yàlla nattu nga ci liggéey jàpp ne war nga caa mën a defar sa sa sa dëkk war nga faa euh, défendre saw askan war nga caa mën a waxit ngir sa kàddu rafet pour saw askan mën koo jëriñoo mais ci biir déclaration boobu moom ñun moom ay murid lan murid digal jëf rek lan baaxee tey jii fii may waxee yow bu ma sëñ bi ne woon lu jëm ci politique bëggatuma koo dégg sa gi mi bu soob yàlla duutu leen ko dégg kon ñun noonu lan mel noonu la ñuy doxee ñaanal ko yàlla mu yàgg fi loolu ci wér wax na it la ku tedd ki waxoon rek euh, moom ci jëm bi boppam ba mu waxee euh, euh, brasu man braseni brasu man loolu dafa doon wax joo xam ne ju am solo lu ñu war koo mën a ba jàngal Euh, lam ci tegit mooy muy moom ci jëmi boppam yu baarisu euh, almuntaxa baarisa man ah euh, kon jàpp naa ne nit ki ala kulli alin suñu borom tabaraka wa taala lam wax rek moom laay waxaat ci ki nga xam ne moom la yàlla jox nguur boo jegee jëm ci ay tànkamit dafay mel ne ci tànki suñu borom nga jëm ndax yàlla moo ko jox nguur kon nañ gëm ne ki yor nguur gi suñu borom moo ko jox nguur Ah, moom ci jëmmi boppam ci <laughs> jëleegu ko ci loxoom kon nan jàpp ne eh, ànd koog moom jàppale ko ko eh, ba nga xam ne liggéey bi mu war a def dana ko mën a matale ci senegal